yàlla sax li nga xamne mom la la may ci tawfiq ba nga diko ci jamo diko jegeñ jegeñ lo yàlla so deme ba ci bir won ko ci dara rek mu mabbu sa jëf mais tawhid bobu il faut ñu diko waxtane cheikhul xaaji abdul aziz nak ken àndul ak mom banago woné wul daraja ana ku masjid dégg alaaji ab ne man may nangam ci limu bind wala ci dundam gëna woyof ñep te gëna dis ñep ci baaxul ku mu gis jàpp na ne yaa ko gën xaqan waaw loolu jàpp yow mi ànd ak moom nag yaay seet li ñu naan yaay seet yow yaay seet waaye moom loolu la jàpp wuute naag ñi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi ngi xëccoo àdduna fu ñu toll bëgguñu ku tudd beneen sëriñ ci seen kanam xaji Abdul Aziz ci mbaaxam ñaata yoon ngeen dégg ne ma nga Touba seeti sëñ Abdul Ahad Mbacké ñaata yoon ngeen dégg ne ma nga Touba seeti Cheikh Abdul Qadir donte yàggu ci ñaata yoon ngeen ne ma nga ñaseen seeti Baye El Hadj Ibrahima te El Hadj mu Niass mi ngi génn àdduna 1975 xaw ma 77 ñaata yoon ngeen dégg ne ma nga dem seeti El Hadj Abdoulaye Niass di doomam ñaata yoon ngeen dégg ne mi ngi ci Seydina Issa Laye Cambérène wala jàmm laay ca Yoff ba mu fi jógee ñaata yoon ngeen dégg ne seeti na Mame Rane Laye ñaata yoon ngeen dégg ne dem na Thiénaba kan ngeen gis mu doxe tànk yooyu maa ngi maa ngi ñëw tuuti mayu tuuti rek moom dafa nekkoon kuy jàngale dafa nekkoon libérateur dafa nekkoon kuy libéré nit Cheikhuna Tidiane suñu sëriñ masul wax mukk leetar bi maa ko jëmee samay taalibe samay mbokki jullit rek lay wax il faut ñu démystifier certaines pratiques yi nga xam ne dafa am ñu koy jëfandikoo dama wax ak ay mbokk man ci Pape Makhtar seewee na ko keroog ma ne ñun kat ñu ngi sant yàlla si la ñu sant waaye njol fuuta tane nañu raw nañu fu bari ah, ndax ma nga sosawee ba gudd julli juróom yi fa la koy joxe te ñun xaw ma léeg-léeg nga toog ñaari semaine dootu julli ca mbooloo kon boog sëriñ Mbaye Abdou ñooy magam Serigne Mansour magam Serigne Abdou mag waaye raw nañu ci wàllu woowu dañ koy la nag yàlla na ko yàlla dollee sàmm waaye nag gis loolu eh, bëgg rek ñu lay rang naan yow nga ne keneen ku dul man nekku fi gënul nañ bàyyi yàlla ni mu doxale Serigne Babacar Sy borom may ya borom cër ya radiyallahu anhu moo daan wax ne àdduna di du ni ko baabakar def ni ko yàlla def la kon boog nañ maslaate ànd xoolal ba ci li xew fii rek ci mondial bi am ay vagabond ngeen baal ma ci terme bi yu ko bëgg a këf rek dekkal ci wàllu affaire u sectarisme affaire u tariqa diggante tariqa murid xaadir tijaan loolu moo ñu xañ ko bidi loolu ñu ko xañ ba ñu ne ba ñu ne nag déglu ba ñu nee suba la Sénégal équipe nationale di daje ak turk la ay ay nit ñëw ngoonu àjjuma jooje fekk na fa Pape Makhtar ci kër Alaaji Abdoul Aziz Sy fekk na fa Sidi Ahmad doomu baayam di doomu góor gi fekk na fa ay kilifa fekk na fa ñëpp ngoonu ajjuma ñuy waaje wasifa ajjuma ñu ñëw faak seeni tabala ñëw faak seeni ndënd ëpp nañu ay téeméeri téeméer envoyé dem am ñu dugg ba mbaar ma ci kër ga ne ñëw leen jébbalu yéen nekku leen ci tus waaw nekku leen ci tus kaay leen jébbalu kaay leen dem liggéey nangam nangam am ñu am lu leen metti Sidi Ahmed ne bu tontuloowuñu kenn na ñëpp ne pat bu kenn yëngu ñu fekk jaar nañu mosole maam Nooru Taal fekk Thierno Mountaga ñoom ñu nga ñu ngay waaju commencé seen wasifa ñoom itam Thierno Mountaga jël kurusam ne Sénégal su gagné suba dog Mountaga mu dog kurusam. Mama Abdoul Aziz Malick may leen may eh, xam ngeen. waaw waaw waaw xam ngeen loolu ci dëgg-dëgg ci coupe du monde rek jaru jóge kër Thierno Mountaga Tall jaar suñu kër dem kër sii di Jamil ñu ne la ñu ne benn taxawaalukat bu ñuy wax boo co daal woon ko sa jëkkër moom nga ko seqal waaye ñeneen ñi seen yoon ñoom safu leen su ko defee nag loolu loolu tabaarakallaahu mooy li nga xam ne mooy yàqal Sénégal par parloo ci wàllu tariqa sànq ñu bari murit a gën tiijaan tiijaan bu xamul ne tiijaan a gën murit tiijaan ak murit ne ñun ñaar ñoo gën xaadir mais ku la ko wax ku la ko wax soo ko xamee ku la ne su fekkee ne loolu nga jot itam te te te nga jàpp liñ la sant rek te rafetal su fekkoon ne bés booba fekkul nit ñu ñu yar nit ñu yiw deret tuuru te benn band ci ay bandi rek jaru ko jarul diggante Touba ak Tiwaawan maam Serigne Touba ca na mu selle maam Alaaji Malick ca na mu selle te ñoom ñaar ñooñu seen maam seen ñaari maam a bokk ndey ak baay ngeen xam ko tey maam Serigne Touba ak maam Alaaji Malick sen ñaari mama bokku ndey ak bay mam maaram mbàkke moo leen meñ ëmbanu farimata mbacke cernu farimata mbacke ibra farimata mbacke amadou farimata mo jur mo jur euh, mati mbacke mam mati mbacke di yaayu mam ousmane si mam ousmane si di bayu alaaji malik ngo euh ibra farimata mo jur xari mbacke soxna xari mbacke soxna xari mbacke mo moo jur mam ngañ ñang mam ngañ ñang mo jur soxna safeetu ñang soxna safeetu ñang dayu allah alaaji aziz cerno farimata mo jur mam mara mako jur momitam way cerno farimata mo jur mam balla aïssa mam balla jur mamar morante ah, salim mbacke mo jur soxul khadim fi nono xajna fi suka su ko defee su ñun nañ fexe ba dese suñu nite waaye am na loo xam ne na suñu demee ba tollu ca nag cheikh nee na bàyyi leen man mën naa sama bopp al midfaul kabir yadribu an boor cheikh nee na sama kënu amul distance xamu ko li ma li ma soree ne dix dix mille kilomètres sama martaba su jógee ci fayu dañ ma koy tegal ba nga xam ne du mat sax centimètre dafay dal bëccu ray na xale yi rek ci suba sa match bi ñu ñuy nelaw ci biir terrain bi ak xale yu brillant yi la rek allah ji Juuf mi la rek mënul jot sax bal xawma ari camara bi la rek ndabar ak doo buyam yu rafet di mënatul gis bal ñuy nelaw xale bi la xawma ma fadiga rek tabaarakallah ba yëf yu tass ah ba yëf yu tassé photo yu ñu doon yëkëte ñu wàcc ko noy def photo yaak pancarte yëpp dara gis dara feeñatul ca te buntu télévision moo tax Serigne Cheikh Tidiane si Maktoum Serigne Cheikh Tidiane Sy nee na gëmal sa sëriñ rek def ko ci sa xol waaye jarul la wut photo di ko def ci oto bi bind sa photo bu toll na ñay def ko ci oto bi mu paan ngay puus nee na gàccaal nga sa sëriñ ah, nee na sëriñ bi du pour oto bi sëriñ bi ci sa xol lañ la wax ne na ko def photo mi defal ci sa saal rek waaye fu nekk nga wone fa fu nekk nga wone fa tabaarakallaahu réewum senegal réewu jàmm la réewu juboo la réewu bennoo la bennoo gi ak jàmm ki ko daan doxal ci dundam yépp moo di Cheikh Al Hadj Abdoulaye Dabakh radiyallahu dafa am at moo xam ne 1978 boobu ñoom Pape Makhtar ñu nga keer di jàng ñu nga Maroc som papa woolu ma ma mu ne dama bëgg nga dem seetali ma Abdou Diouf nga waxtaan ak moom ne ko sa papa nee na dafa bëgg nga joxe ordre ñu santaane ñu tëj bistro yépp tëj baar yépp tëj dancing yépp night club yépp jullit yeeg ñi dul jullit ñépp bokk torox lu tàllal yàlla loxo ñaan ko maral mi metti na ma dem wax ko Abdou Diouf premier ministre mu ne ma sengor nekk fi de dafa dem Iran c'est-à-dire d'Iran di dabaax looyu boobu moo fi nekk waaye dinaa gis Jean Collin ñu joxe ordre ma jóge fa dem seeti Yacine Thiandoum ne ko sa papa moomu yónni nee dafa bëgg tabarakallahu ngeen taxaw yéen itam def seeni ñaan te na ngeen koy defe dem seeti Maodo si le grand imam seet lenn ti kilifa ñu joxe ordre bi ne tëj nañu lépp président Abdou Diouf euh, euh, Abdou boobu premier ministre la yónni jaaxa jang ci El Hadj Abdoul Aziz ne ko li mu waxoon def nañ ko góor gi nag ne nañ ko indil rajo mu waxtaan keroog bi rajo Sénégal di teg waxtaan wi ci la taw bi tàmbali ñu bari fekk nañ ko fi dafa taw ci région yépp nit ñëpp naan ji abdu ji abdu alaaji abdu ba ñu wooree ca kori muy waxtaan ak nit ñi ba ñu jullee kori gi ba pare jékki-jékki jooy ne bu kenn tudd ab du ci ndox ndox sax su ma ko bëggee dama naan Ablaye Mbaye jëlal satale gi may ma ndox ndox yàllaa ko yore ñun ñëpp bokk ñaan kenn xamul kan la yàlla nangu bu ma kenn tuddatee ak ndox ma taw ba di ko wàcc kooku mooy nitu yàlla waaye koo xam ne loo ko tagg ba ah? maxtaan neen def na ci xasida anta alladi bi yadika al amtaaru la bi yadi al ibaadi ya gaffaaru anta yow dong dong alladi yaay buur ba nga xam ne al amtaaru taw yi ak toq yeeg gud yëpp biyee dikki sa loxo la nekk nekkul ci loxo benn sëriñ nekkul ci loxo benn yi bennu yonent waaw yow mi nga xam ne yaa dëgg ci sa mbaax rek dégg ne ñun ñëpp tàllal nañu loxo baalu la nga daal yow wàcc taw bi ci saa si li mu mujj def acte bi mu mujj def moom alxaaji Abdul Aziz mooy maaw naan ko fii ci mausolée maam Seydou Nooru Tall la ko defee keroog rawaan mbayee jul góor gi dafa jooy keroog ba na Ceerno Muntaga ji jooy ñëpp ñëpp jooy Xaji Abdul Aziz dafa ragaloon yàlla mbub mu woyof fu mu toll mi ngi tudd yàlla son papa soxla Xaji Abdul Aziz ndax soo ne son papa day mel ne da ngay da ngay darajo wala da ngay wat na dem ba nga xam ne wóor na Pape Maxtaar wóor na ñoom Pape Wade mii dafay toog dafay tëdd ci lal bi nga ngay yëg ne góor gaa ngi ne la waaye baaraam yu rafet ya mu ngi naan ni ku rafetoon ay cër la mu ngay tudd yàlla moom ñoom Pape Makhtar bés bi muy génn àdduna man samdi jë ba ma fay jóge tàgg ko bay dem tuuti Pape Makhtar ni Thierno Mountaga moo fi ñëw sama ginnaaw mu ne ko taxawal sama bopp nga ñaan nga jàng ñoom Pape Makhtar mi moo fanaan ak góor gi ak docteur Moustapha Sow ak Abdou Dieng ci booru 4 heures yëg nañu góor gi yëngu ñu wàcc ñu tàllam mu ne leen damay defarwaat rek euh, noppalu leen nekk boobu nax na leen boobu jot na Azraïl ñëw na pour jël ko tabaarakallahu mu war a dem te Alaaji Abdu dafa ñaan yàlla ida jaa azrailu li ruuxi qaabidan tawalla ilaahi qabda ruuxi wa xafifi yow yàlla maa ngi lay ñaan man abdul aziz bés bu malakul mawti war a ñëw pour jël sama rox yow yàlla maa ngi lay ñaan ci sa mbaax mën nga ko yow ci sa bopp na nga méngoo jël sama rox azrail même malaaka bi bu mu ci am yoon waaw waaw ñoom docteur xëy naa góor gi dañ ne loon Pape Maxtaan boobu ay 5 heures kel ñuy waaj pour julli fajar ne ko góor gi dem na bu yàgg yal nañu ko yàlla fayal su ko defee nag Pape ñu di leen ñaan ñu di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay daayira yi kat li koy dundal moo di xam-xam di jàngale di teg nit ñi ci yoon daayira bi du daayira xawaare du daayira tàppante paso du daayira yaama neex ñuy sant nag ki nga xam ne doom la ci alxaaji Abdu soppi la ci alxaaji Abdu li muy nekk ndaw ci at wéttaloon ndax nitu yàlla yi yàlla xamul at donte le nag moo ko maye yàlla li muy considéré ci nit moo di xol bu laab nitu yàlla itam dëgg dëgg dëgg ki ñuy considéré li ñuy considéré ci nit moo di pas-pas ak cofeel ak dëggu Serigne Issa ak ci cadre boobu lañ koy sante di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ci biir ak ci bit ñuy tëje suñu wax itam gannaaw bañ nga leen euh, ñi am tariq ñi amee tariqa bi ci mbooloo bi nañ ko fonk di taqoog seen wadifa ak seen lazim tariqa bi kat doo ñëw mu neex la rek nga ne dama koy aj ba mu neex ma déedéet bés boo ko jëlee da nga ko war a jëfandikoo démb rek la am ku jël ku bëgg a jël tariqa bi ci man ma jox ko ma ne na ko Pape Khalifa jox sart yi mu jox ko ko bi mu ñëwee ma ne ko yow kat da nga am sens surtout cheikh a nekk ni mu si Mouhamadul Kabir te jël nañ ci pare ma ne si naa jox ko ko mu ne ma jox naa leen ndigal jox ko ñu jox ko ko mu ne ko mu ne ma mu ne ko ah, soo demee na nga daal di wasif wasifa euh, wasifa tàkkusaan waaw xëy la la bii itam na nga ko mu def nga ko waaye boobu jëla ko kon boog war na na nga ko daal di def ah, waaye ñun nag da ngay jël rek tabaarakallaahu dafa am benn góor gu neex som papa dem dëkkam yaram wi tàng rek mu jël benn xarum tubaabeer ne jox naa la sama xarum tubaabeer am na ku neex sama doom bàjj ku ñor Alaaji Bachiru Diop mooy papa yi xalifa mi mu ne daw leen yewi ko yaram wee tàng su seddee rek mu fàtte ko <laughs> yewi leen gaaw dugal ci maal bi <laughs> waaw am na ñoo xam ne itam seen yaram may tàng rek ñu jël tariqa bi moo tax Seexuna Tijaani suñu sëriñ ne yow jur bi bul forcer sa doom ci mu jël tariqa bul forcer sa jabar ci mu jël tariqa ku nekk bàyyi ko boppam ba mu doy suñu tariqa kenn du ci propagande nit na Tidiane suñu sëriñ nee na yow mi jël sama tariqa fonkal wali yu yépp bul doye dal benn tariqa bul xeeb benn wali yu tariqa murit war maalal tariqa qaadir war maalal yeneen tariqa yu mën a doon war maalal ñépp suñu sëriñ de loolu la wax waaye bépp taalibi bu ne dama aju ci tariqa sàngam ñu jox la télévision bi le wala rajo bi le moo xam fu mu mën a doon nga wax wax bu blessé sentiment nit doo nit dof nga jaam ñi yàllaa leen moom Serigne Touba moomu leen Alaaji Malik moomu leen Baye Niass moomu leen yonent bi salaahu sallam ni muy récër moomu leen waaw waaw subhana alladi asra bi abdihi wa innahu lamma qaama abdullah yadcuhu kaadu yakununa alayhi libada abdullah abdullah jaamu yàlla rek yàlla nee na daal cër bi ngeen am moo di ay jaam yem ngeen ci nag ku ñett ñetti nag ba def effort ma gën la taf waaye njaam gi moom yem ngeen ci yéen ñëpp man daal man daal bàyyi naa yéen nit ñi bu leen ma bu leen bu leen ma fontoo ay wax de bàyyi naa leen nag mbubb yu rafet yi sa jacquard bi sa bazin bi sa wëlluur bi sa guipure bi sa brodé bi waay waay yo tool yi ah lii lan la mango ah waay mango neex na de lii lan la papaye solo ah waay bii mooy papaye lii lan nga ne raisin bi ne ah waay raisin neex na lii lan la nga ne pomme poire abricot pêche yàlla nee na yooyu yëpp ma bàyyee leen ak seen ceeb yeeg Eh, xaw ma ceeb yu bu digg bi nuñ koy Caroline bu neex boobu ceeb jën yeeg côtelette yeeg nee yooyu yëpp ma bàyyi leen ko yéen na ngeen bëgg a buux buuxloog man ci yeneen bàyyi leen mag sama domaine nag man rek may nekk buur dund bi li muy neex ne dañuy teqali ko kenn ku nekk ci sa bàmmeel amul benn sëriñ bu lay fekk ci sa bàmmeel dëgg la sa sëriñ mën na la fekk ci sa bàmmeel ci kaw su fekkee ne la mu santaane woon yaa ngi ko ca doon roy gisagu leen benn sëriñu Tiijaan wala sëriñu murit bu jóge Tiwaan wala Touba dem ubbi kaso euh, cent mètres carrés fale rëbës ne génn leen kenn defagu ko dégg naa moom Alaaji Malik day waxtaan am ñoo xam ne seen yaram dafa tàng ca gosaas ñu daanu di wane wane daanu mu ne may naa leen kër gouverneur ca Ndar kenn ku ne xool sa morom mu ne ndegam kër gouverneur ngeen ragal a dem jël ko ci sama may gi dafa ngeen mën naa leen may aljana góor góor leen jaamu yàlla ba tax na jeunes yi jeunesse bi nañ leen libéré jeunesse bi dañ leen libéré yàlla nee na sama sama audience man yàlla yow yow jambi bi yaa koy fixé su dee président su dee préfet su dee gouverneur il faut nga demander audience waaye man yàlla yaay fixé sa audience yaay fixé heure bi yaay fixé date bi moo di foo ne allahuma rek pare naa foo jullee pare naa foo yore foo yore sa kurus pare naa may walaay déglu yow sama jaam kon boog sëriñ bi nañ ko wormaal nañ ko roy waaye du yàlla du yonent sa baay wormaal ko teral ko nit mënul ëpp baayam waaye lu léegi xale yi loo ñu ne paa bi ma ma ma mama mami mami ay Paul ki Jean ki Babs Ibrahim nga naan Babs ba Bachir Bachir nga naan Babs waaw dégg nga euh, ab Ablaye ñu ne abu abu abu dégg nga Habib ñu ne allo bib na nga def allo allo ah wala benn wala allo benn na nga def. nañ génn ci yooyu nañ génn ci yooyu tabaarakallaahu satisfaction maanaam euh, nuñ ko euh, nuñ koy waxee ci waay euh, tarafoo yaa ni dama koy fàtte ci français baat bi tey wolof di def mu kii distraction distraction baax na déglul sa tuuti musique waaye bu ko def nag muy sa diine Bob Marley dama dégg ci ginnaaw ñuy def ay festivités pour Bob Marley ma ne ci waay Sénégal kenn xamul fu mu jëm kan mooy Bob Marley dëkk ca Jamaïque ñun lu ñu joteeg ba man la përntee ñun ñu seet ndaamal kajoor bopp ah waaye Bob Marley xale yi koo gis takk na bënn na noppam takk jaaro ah de tabaaraka la koo gis mu ngi woote dàq fecc xoolal suñu télévision ni mu ñàkke solo léegi xale yu tuuti fecc jongumaa yaa taaru loolu lépp franc-maçon yi ñoo koy doxal ak ñi nga xam dañuy xeex diine xool ba gis sa jabar mu romb la cuuraayu sol lu rafet sol tay dem ca xaw ma la Sorano xaw ma euh, ipus euh, xaw ma lan farab ba ñu naan tey tey la mise ma tey la ñu seet mise bi yow xam doo góor war loo am jabar boroom ngeño nga nag ah, borom ngeño nga nag waaye doo góor góor dëgg-dëgg day fiir ak njabootam day aar njabootam day sàmm njabootam maa la maa la jur bëccëg keneen sa ndey ne la maa la jur bëccëg da ngay nangoo tënku ci li ñu fekk maag sa baay wala nga may ma kër gi su ko ñépp defoon njaboot gu bari jub waaye léegi drogue bi mooy yàlla gi njaaloo gi nu la neex mel pantalon yu seere te sa yaram wi ngay tiitaroo yàlla nee na def ci ndànk de bés a ngi ñëw daañ la teg ci suuf di la jullee suuf jëppi la suuf yàkkamti ñu dugal la ba ba nga gis loo xam ne da da daa daa yooxu ci biir bàmmeel kenn du ñëw sa sëriñ du ñëw sa baay du ñëw ndax sa yaram bi nga doon tiitaroo te soo fi yàggee tuuti commencé ras xeesal nañoo xeesal a xeesal ba da ngay gis nit léegi doo ko xam mu naan la mën a diw ni jaay Maodo man nga ah yow da nga xaw ma la woon tabaarakallaa tumi tumi tabaarakallah tumi tumi tabaarakallah tumi